man gumuma ko gumuma ko mën na am dañ ko may kar bi mën na am dañ ko may waaye jinda kar bu yem ni soixante cent cent soixante boobu moom su doon keneen mën naa wax ni dafa ko sàcc man mënuma ko am fii ci di ci fi ma fi ma jënde fii boobu may li mënuma ko am xaw ma nag lu mu lu mu demee ba mu am kar soixante cent soixante mille xar boobu daal jarul loolu kon mën na mën mën mën nañ ko président mën nañ ko may kar mun nañ ko may mhm. parce que bu ñëwé fi mun naa ko may xar mhm. fekkee jëndul mais ci prix bobu dal xar bu tol noonu munoñ ko am fi 160 aw ma ko wax déggel yàlla aw ma ko yow ban prix nga jox xar bobu hein xar bobu mu jënd ban prix nga ko jox euh 200000 200000 fi de fi fi man gisumako fi bu toll fofu bu jar 160000 gisumako man munoo ko fi am fi man munuma am man jënd kat jaay kat la munuma am munuma jaay wax dëgg yàlla. fu mu nekk nii ku nekk njogam mu ngi fi waaye nag jogaay rey na nit yi séeréer dootuñu tabaski parce que xar bu mel ni boo lemee cent soixante mille jëm mars jubal xar bu mag bu toll nii foo nekk ñu jëndi la. mais am na ñu ne xar bu toll noonu it mën nañ ko am ci ci prix boobu. ah mën na am mën na am waaye nag yombul de koo fi duggal yor cent soixante yor photo boobu xar bu toll noonu. di nga dem marché bu bari de dafa mel ni kon dañ ko ko may rek moom dañ ko wanteer daal non xam nga suñu séeréer yi moom mën nañ ko sarax sarax ko am na duñu may séeréer dañ koy sarax suñu jaam la 160 000 wala keneen am parce que mhm. euh, le président là, mhm. il a même participé, mhm. mais Karbobu, qui est 120 000 à 130 000, parce que Karbi, c'est Cherul, c'est Djafoul, parce que Barina, Louberi c'est Mm -hmm. Heureusement, l'État a fait tout, tout, tout, Euh, conditions yi réunies moo tax xar yi yëpp ñëw na Sénégal. ñëw na Dakar. xar yi vraiment c'est abordable. Mhm. léegi nag ñu ngi jooytu euh, client yi ñëwaguñu mais tabaski noonu la. tabaski c'est c'est quatre jours avant. Mhm. c'est jeudi. vendredi samedi et dimanche les quatre jours incha allah xar yëpp dina jax mhm. loolu incha allah loolu la nee naa encore. encore euh, vraiment prix bu ab ba milieu équilibré. Mm-hmm. ñun tamit dañuy jënd xar yi dañuy jënd banque yi dañuy élever suñu xar dañuy bugg a jaay prix bu baax. Mm-hmm. pour am dara pour yóbbul njaboot yi waa mm-hmm.